teew di ko jaarale ci sunu turu kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nànk ndakaaru ñun ñuy wax ak yéen man Maxa Mbeng laa tudd maa ngi dëkk ca déer di coordonnateur ndaw yi ndakaaru ndaw nag buñ ko tuddee mun na nekk ndaw ci at am na kenn ku may tooñ léegi sax di ma wax ne mais fii ay paa gis waaye ndaw tamit mun na nekk ku ñu yónni ñun nag suñu liggéey ci ndakaaru nekkul dara lu dul topp suñuy tànk kilifa nekk ci seen ginnaaw suñ ne ñuul na ñu ne kukk suñ ne xonq na ñu ne cur buñ ne weex na ñu ne tàll suñuy kilifa nag grand sëriñ alaay Ablaye Makhtar Diop Alaaji ab Ablaye Makhtar Diop grand sëriñ de Dakar chef de la confrérie Lébu ci teg sunu ndijaay sunu baay sunu kilifa imam ratib Alin Moussa Samba di ci teg Ndey Jàmbur Alaaji Badu Gëy di ci teg jaraafu Ndakaaru Alaaji euh, Faala Pay di ci teg sunu ndijaay euh, ndey ji réewu ndakaaru alaaji Malick Jaay di ci teg sunu ndijaay Latir Thiaw mi nga xamante ne mooy sartigéewu ndakaaru ci turu chef de penc yëpp ci turu ci turu kilifa yëpp ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa ndakaaru di wax nag ñun ndawi ndakaaru sunu mission principale lenn kese la dëkk ndakaaru juddoo fi màggee fi di défendre sunuy kilifa ndax gis nañu lu nekk ñu ngi koy jël di ko yàq ci suñu deru kilifa yi rawatina sunu imam ratib Alioune Moussa Samb nit ki nag boo ko xamul mënuloo wax ci moom te nit ki lu mu nàmp rek loolu lay toxamtu waaw li mu nàmp rek loolu lay toxamtu ñun askanu lébu musuñu ŋàññ kilifa kenn musuñu toog tey

yàgg donc war nañ fi mën def juma mak ñi waxtaan ñu ne sëggu ndakaaru yi nga xamantene moy grande mosquée dañ koy def juma donc ci la idée bi njëkk génn li lay wax ni c'était en 1938 1938 nañu delu ci histoire xol Sénégal nu mu meloon xool ndakaaru nu mu meloon xool kan mo fi amoon juma kan ak kan la juma paré won li ñuy wax ni na nga delu ci histoire rek 1938 pose premier pierre grande mosquée ñu ko def. Nous avons en 1938 le 20 février 1938 gouverneur bi nga fait colonie AOF mon moo teg premier première pierre bi moom Marcel de Coppet mon moo njëkk a teg premier première pierre grande mosquée de Dakar en 1938 Aduna di dox guerre bi tambali 39 45 kenn talatul ay def de dara guerre bi tàmbali ñu nekk ci nekk ci ñu paré ciow indépendance yi ñëw ñu ko yëkëti waat en 1958 la ñu waat ciow defar jumaa bo fekk ne tegoon nañu pose premier pierre ba paré bi ñu ñëwé bobu ndakaaru lébu yi kese ñoo fi dëkkoon amuñu kenn kuñ ko doon xëccool dëkk da fay am autochtone bo démé Cap-Vert Sampa Juuda ya fa nek bo démé Côte d'Ivoire bo démé Paris parisien ya fa nekk dëkk da fay am ñu fa saxoo dafay am ñu fa ñu fa ñu fa baax fekk ak ñu fa fekk baax yàlla dogal na li yàlla dogal na da ko nit ci nangu xam nañ ne Medina ñu ngi ko sanc 1914 ci waxtaan bu lébu yi waxtaan ak alaaji Malick Sy mu nekkoon médiateur bi tubaab bi bëggoon ko tuddee Pontiville alaaji Malick waxtaan ak lébu yi ñu toog waxtaan ba juboo ci lañu soog a déplacé six penc yi cent 1914 donc armée lu Ndakaaru mu nekk grande mosquée tey ñu ngi ko tëj 1912 ubbi almeru betoire donc armeel yooyu nga xamanteni suñu suñuy armeel la woon li wax ni 1912 la li wax ni yàgg na li wax ni bobu ndakaaru legui kessé kese nek bobu xatuñu xataay bi ñuy ba nek di réclamer naan man fi la mom lii la bëgg lii la mom bobu capitalu AF mo nekkon ndakaaru donc ñu jël suñuy sëp ñu déplacer ko déplacer ko mu dem mu dem mu dem abattoir tay ñu dem en 1938 ñu sommes Blanchot bi nga xamante Nous bi bi Blanchot moy rue Moussa Diop dañ ko grand Ablaye Matar bobu mo Nous yi dakar Lamine imam ratib ba ñu tok ba 1938 ñu né Nous ji war réformer donc war nañ wut un Juma bu sommes yaak ñu xol sëk yi ñu né sëk yi de bañ ko yagna donc war nañ ci mën def juma mak ñi waxtaan ñu ne sëgu ndakaaru yi nga xamantene moy grande mosquée dañ koy def juma donc ci la idée bi dëkk génn li ma lay wax ni c'était en 1938 1938 nañu dellu ci histoire xool Sénégal nu mu meloon xool ndakaaru nu mu meloon xool kan moo fi amoon juma kan ak kan la juma paré woon bi ñuy wax ni na nga dellu ci histoire rek 1938 pose premier pierre grande mosquée ñu ngi ko def. Nous avons en 1938, le 20 février 1938 gouverneur de nga colonie AOF a fait teg pause première pierre bi moom Marcel de Copec. Mon mot a teg première pierre grande mosquée de Dakar en 1938 adduna di dox guerre bi Tambali, 39 45 kenn talatul ay def le dara.

dafay am ñu fa ñu fa ñu fa baax fekk ak ñu fa fekk baax yàlla dogal na li yàlla dogal nag da ko nit ci nangu ndakaaru yàlla def na suuf su baax yi ndakaaru la nekk climat bu baax bi ndakaar loolu la yàlla dogal xëccoowuñu kër maamu kenn xëccoowuñu jumaawu kenn jumaa yu grande mosquée de Dakar jumaa yu lébu la lébu yi ñoo ko moom ñu ngi wax naan jumaa yi jumaa yàlla la dëgg la jumaa yàlla la waaye ni mu amee jumaa yu Saraxolle am ko jumaa yu bambara am ko jumaa yu tukulóor am ko jumaa yu séeréer noonu la amee jumaa yu lébu taxul jumaa yëpp yàllaa leen moom ni mu amee sax jumaa yu ñuy askantelee nit. balaay may ñëw damay relater lan mooy ndaw ndakaaru président jund na ko tuuti ndaw ndakaaru ay jeunes lañu bokk ci fukki pentier ñaar gox bu nekk ñu am ñuñ fa jël te ñi ngeen gis sama ginnaaw mu nekk le comité pilotage. parce que mënoon nañu woote dëkk bi yëpp fii fees del kenn du fi xaj mais tey bii bi mooy comité pilotage bi ñoo fas yéene waxtaan askanu Sénégal ak liko wax ndaw ndakaaru bobu lan moko taxa juk liko taxa juk ko lenn la lu simple la ken botuñu lu dul askan juk taxaw pour képp ku xamné ne na pour dal suñuy kaw kilifa wala suñu askan ñu mën a défendre suñu bopp ci logique ci yoon ci yar ci teggin mi ngi juddoo ci keroog ba problème weer di commencé di am Sénégal di ci am doole ñun waa Ndakaaru je pèse bien mes ñun waa Ndakaaru suñu imam wax ka nga xam ne dëkkul Ndakaaru du doomu Ndakaaru fa ñu dëkk seen imam seen ay naayam ak seen lépp wax Nous, Nous ñu nous suñu nous ñom ñu dal suñu kaw imam si le boucle bi trop c'est trop wér bi yalla la mais imam ju ne jak julle qui ko parce que ya garanti ñu sa ginnaaw ñu jug taxaw si nak xeex si ba lolu Je pandémie bi ñew ni ko waxee ñu ji euh, fale mosquée ku ñu jug def lañu wax def suñu action sociale def lu ñu wax yépp taxawaat ba yàlla may ñu jàmm ba ñu tijjuwaat jumaa ji ndawu ndakaaru boobu jugati keroog ba nga xam ne am na lu ñu waxoon lu jëm ci mbirum lii nga xam ne moom mooy jumaay Tiwaawan imaam wax ne sama jàkk de bëgg naa ko fi julee joxe ñaar dégg ngeen tendance politique ñu diaboliser ko nous ne ñu jugati àndax ay mbokku talibé àndax sénégalais tay imam pap Samba bobu jour bobu réussir na pareem parce que yàqkat yi lañ doon yak mu jéewu soti ndawu ndakaaru bobu jugati keroog bañuy wax suufu parc Amazon coow li ne ku suñu jëmm yu xeebu yi dañu sol suñu dal dem toogaat kilifa yi ndakaaru parce que nag booy defaan nit nga dégg ñu wax si moom naka sudul noonu di nga dem jubali ci moom ba ñu demee grand sëñ recevoir waxax ñun wax ju ñu doy ju leer suñuy nopp tey ndaw ndakaar yooyu ñoo jugaat li am lan la mooy tabaski bi passé suñu imam Pape Samb di imaamu ndakaaru du imaamu Sénégal nag dem Imam Dakar, mais mon la président de la république du Sénégal nous fi nekk ñu koy Nous, jomaay ñëw bootu si nous avons koy garanti nous avons dit. bi mais xam ne mbirum avons dafa am nous président dit, nous bi dit nous dafa ans est-ce que grande mosquée continuer ou wala mais nag bu ñuy wax suñu imaam ñun ndakaaru xutba xutba na ba xutba bi jeex parce que man damay jaar si digg bi ba xutba bi jeex mu pare di waxtaanaa président gars yi dañuy fàtte ne moom mooy imaamu ndakaaru en dehors de imaamu ndakaaru république lébu dafa am mu jiitu république du Sénégal moom mu bokk si juróom-ñaari nit yi ilif loolu tribinalu l'islam ci Sénégal mën nañu wax ne fii ci ndakaaru moom moo ko yore di attekat bi yor kade bi am kàddu am dogal ci ndakaaru ñépp xam nañ ne jamono yu wees président bu ñëw daan toog ak waa ndakaaru waa ndax moom sañ na laaj président pour mu toog ak waa ndakaaru waaw wala déet moom ban dëkk la jóge sénégalais la si mimbaram la taxawte moko ilif ñépp xam nañ ne néegu yàlla la ndax la wax dafa jéggi yoonu yalla waaw wala déet wala dafa jaxase l'islam waaw wala déet président bëgg naa nga recevoir ñun askanu lepp dem nga fii dem nga fii dem nga fii ñëw goo fi ñooy bunt bi ndax kooku taxaw sawet mooy grand sëriñ lii li explique ko li nga xam ne moom mooy organisation lépp léegi lan mooy problème bi problème bi du len le mot lébu dafa mel ni dafa am nit ñu muy déranger lu tax waa solo tey na ngay jëmee ci jumaa yi tuubaa tiwaawan feneen ak feneen dem mbàkke dem fu ne ña fa ne ñoo fa ne lañu wax lañuy doxal pourquoi li nekk ndakaaru ñu bëgg ko def jumaa yi sénégal du jumaa yi sénégal jumaa yi ndakaaru la il faut mu leer seen bopp ñun nag la nattu bi daal ñu dëkkee ville parce que mbir mi nag la jógee ñëw fii tey ñooñu doon wax ñëpp bi tabaski jotee aw nañu yoonu consomment jam ñaari ña tontu di clash di wax di ñaawal di def lu nekk ña nga jaaxaan seeni piliyaan ngeen baal ma nag waxu lébu laay wax seen dëkku bàyyi ak seen dëkk nay ñu lébu loolu la ñuy wax toog jaaxaan da wax la ñuy wax àndax yenn presse ngeen baal ma si presse bi ah En arrière de presse nous titre pour ses buzz personnel parce que un réew buzz lañ qui kiy wax li jariñ askan ko Qui wax li a askan bi jox ndax ndax diw diw diw ndax marketing personnel nak ñun ndaw nous day parce que tay suñuy bàyyi ñoo fi duñ ñun doom yi ñooy janox ñoom déggoo waa kër alaaji Malick wax déggoo waa kër Serigne Touba wax mën naa ko topp noonu ba yoof gi ñu nekk ñan nga dégg ñuy wax ay were mese gu sew olof nag def na cuuj day xam lekkal ndakaaru lebalul nit lu bon ndakaaru jiw lu bot suñuy maam dañ ne yaatal leen saxeti xajal gan yi dëkk ñu yaatal saxeti xajal gan yi dëkk gan yooyu yëpp tey bi ñu ñëwee la mag nga daan wax da ñëw ndakaaru ngir alal wala nga ñëw ngir peex mu neex wala nga ñëw ngir dëkkuwaay bu neex wala nga ñëw pour jaafi tekki àdduna di si defar sa àllaaxira tey nag ñooñu ñoo ñëw ba ndakaaru yafal leen ba ñu reg ñoo ñoo ëpp tugg ne dañuy dal ci kaw ndakaaru ça ne passera pas mag ñi duñu demanteex ñoom ci fa mbaxane doonee benn mag ñi duñu jaayanteex ñoom doole mais mag ñi am nañ ay doom am nañ ay sët seeni set nag di ndawu ndakaaru jug nañu réclamer droit boobu nga xam ne ñun am nañ ñu ko dañu ko jox ci respect may interpeller ministre l'intérieur parce que dem bavir mën na am fu ne gis nañ li am ci tabaski bi ah ay xeexu ini am na ba dee am ci lan moo ko waral seetaan 77 la commencé woon 2017 ba 2024 tey moo am na ci dem nañu toog ba am na ay arrestation ñun daraa lañ dëkk képp kuy wax lu bon bu ñu bëggee xam suba balaa ngoor a jot bu ñu bëggee xam fan nga dëkk mën nañ ko xam bu ñu bëggee def ñaaw ñaawteef mën nañ ko def parce que réew mi nag ñaawteef kenn doon ba jàngal kenn mais nag dañuy ay doomu lébu ñu yar ñu ci éthique yar ñu ci joxe cër mosu leen gis doomu lébu bu jug di joxal kilifa diine wala di joxat bi keneen wala di ko wax lu ñaaw léegi lan moo tax ñu bëgg ëblati ku ñëw jëmale ko si ñun loolu nag lañ dul nang retrouver nañ en famille jël nañ suñuy pôle d'avocat may alerte tiktokeur yi ñi nga xam ne ñi ngi yor télé loxo yi maanaam sama classe bi yor seen téléphone portable lu leen neex ñu def ci di seen page ñenn ñi nëbbatu si ginnaaw nit yu jubul yi

li may wax mooy maa ngi interpellé képp kuy doomu lébu na jug combat bi combat ndawu ndakaar daf ko tiddi mais combat wu askan la waxuñu xeet nag pour beddikante parce que loolu dépassé nañ ko bu dul loolu bu doon loolu suñu maam du ñu yaatal sàqati bàyyi gan ñu dëkk li am mooy tooñuñu kenn bu ñu kenn tooñ koo ne nag doo ko topp daa fekk fa ngeen jëm soriwul te li ñaaw li ñu ngi commencé Paris dégg nañ ñuy wax suñu imaam lu ne suñu imaam doomu ndakaaru la ndakaaru la juddoo li doomu ndakaaru ndakaaru daan def di fo fu balax jaar ci lu ne moom la def jàngi ba yàlla def ko li mu doon du yonent ootewul yonent ootewul dara yàlla yebalu ko si ay nit daa jàng jaar fi mu war a jaar ba yàlla may ko li mu way ñun waa ndakaaru mu doyloo ñu jiital keneen ku bëggaloo ko coow da dem sa ëttu baay wala samaam lolou la doon wax pour ñep ñu comprendre ko noonu wax di nak du yem fi dañ ne tay nañu wax ak askan wi di len ci juk lepp lu ci wax di len ko def may wax kilifa diine senegal na ku nekk wax parce que wax dafa jot parce que lépp yi teral nañ ñep de buñ limoon duñ fi jóge de ndakaaru lepp ngi fi de amul kilifa diine bu tek tank ndakaaru te mas mi askan ñu leen dara wala ñu tëral leen dara ñom xamone nañu lan moy dakar seen doom yi mujjee juddu nag bëgg a di dakar nañu wax ak dañuy bañ ëllëg dara am ñuy oote tok di waxtaan té mën naa ci kaw yar kayor yar nak wala ki ilif ñep muy bour na jël responsabilité am ci yak suñuy kilifa naka parce que mayetuñ ko ken presse yi nga ñi fi nit di wax lu leen Ken bañul presse bu binda parce que presse information lay wax mais nak dafal bul def ben poire rek baye fi dess. boo demé fi dama fa sa des boo tiitree dara wax ju ñaaw di fess aduna yëpp xam ko ñëpp xam nañ ñun ci presse lañ né. ñëpp xam nañ li def moy excuse ngay demander. fi nga koy def est-ce que nit dina ko lire wax du ñaaw de jall na ba pare loolu lañ dul mayeti ken. Ken ken. ñu ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp yéen ñi fi ñew tamit

ndaw ndakaar ndaw ndakaar yii nag du ndaw yoo xam ne dañ leen yabal ay ndaw lañu ñoo xam ne doomu Lebu lañ di doomu ndakaaru jub taxaw pour défendre seeni waajur ñu ngi sant di gërëm di leen wax jërëjëf jëf yàlla na yàlla wane la waat yeneen anam ci jàmm jërë leen jëf